yooyu ah, ah ba ñu la nommé au plus fort non xaaral rek xaaral au plus fort au plus xaaral rek yow yaa yow yaa ci laal au plus fort de Mamboy Diao directeur des domaines yow da nga amoon lien direct ak Macky Sall c'est-à-dire lien direct ak yaa Macky Sall la woon mais souvent loolu ça c'est pas grave souvent les directeurs de domaine le DGID voilà certaines fonctions da am la connexion directe avec le euh, président à moment boo xam ne vous étiez le <laughs> nangul rek jusqu'en septembre dernier j'étais certainement un des principaux collaborateurs du président de la république laajal sa bureau comme pare man bi ñu may woo di naan kaay dis président day def discours ngeen dem dise ko ko ci télé yi du tey tout le monde me regardait comme un verre dans un instant mais non ça n'a rien à président de la république est libre sa confiance à qui il veut moom mooy xool ku ko neex mu ne kii de bëgg naa ànd ak moom ci lii bëgg naa liggéey ak moom lii ak lii ak lii ëllëg xanaa xamoon njiitu réew mun naa ministre de la justice mais am benn réforme bu mu bëgg def mu laaj keneen. waaw loolu yëpp lu mën a mais mais assumé ko rek ñu jàll ci leneen. man kay loolu sa pour man loolu lu baax la njiitu réew ak li on était à ce moment là peut-être 17 ou 16 millions de Sénégalais man mu jël ma. di ma ci yenn sujet dama ci sant yàlla. d'accord assumé que rek ñu tu as été proche collaborateur d'un homme qui a incarné un pouvoir pendant douze ans moom président tey ci conseil des ministres nee na nañu organiser des campagnes de communication sur son bilan sur les perspectives qu'il offre au Sénégal yow nga toog 4 mois nga génn nga ne yow nga ne on vous a pas fait rêver moi je je veux demande comment tu veux nous faire rêver. vous êtes un grand observateur de la scène politique sénégalaise. yow vous êtes d'accord que vous l'êtes je sais pas ah, à si. vous de me dire ah si vous l'êtes je très sérieux là ah. mais qu'est-ce que vous avez à dire du bilan de Macky Sall ah, a à dire il a essayé de travailler dans l'intérêt des Sénégalais non moom moo ne ci communiqué bi lui-même nañu vulgariser son bilan et les lui, perspectives qu'il offre lui Macky Sall comme son prédécesseur Abdoulaye Wade comme le prédécesseur de Abdoulaye Wade Abdou Diouf à chaque fois qu'il y a Macky Sall kat yoonu yokkute la ñëwee pouvoir 2012 waaye 2019 lan lañ doon wax pourquoi nga bëgg États-Unis Joe Biden bii bu waree demaat campagne il faut muy indi lu bees parce que sujet yi ñoo lay dab aujourd'hui bu ñuy wax États-Unis dinañuy wax ay questions sur l'avortement sur les armes et cetera donc élection présidentielle offre programmatique bu bees la man je ne suis pas là je vais pas défendre aujourd'hui le bilan de Macky Sall ni le mettre en mal parce que loolu il a Benno Bokk Yaakaar pour le fair quand il fallait le faire je l'ai fait mais dama ne quand il voudra parler de bilan ceux qui sont contre ñoom dinañ wax ak ñoom ak waa Benno mais Benno Bokk Yaakaar ci boppam 2012 bu muy falu ak Benno bu muy faluwaat 2019 dañoo indi programme bu bees c'est normal parce que réew mi day dox problème mu tey yi du yooyu ñoo fi nekkoon 2019 donc il faut être d'accord que man it xam naa suma réew mais mën naa gëm man lii ma indi buñ ko yokkee ci li fi nekkoon ci depuis indépendance bi léegi mun na dem feneen ci intérêt wu Sénégal. mais mais bu boobaa dans ce cas. non xam nga dafa li ngay poser question dafa am ñi nga xam ne ñoom dañoo ñëw mel ni mosuñ fa woon bokk ñu sànni lépp moi j'ai toujours di que li nga xam ne mun naa ko assumer. parce que moi je ne définis pas la politique de la nation je n'ai pas été même un ministre sectoriel pour dire sax qu'en matière de santé wala ay wàllu culture wala économie mënoon naa suggérer lii njiitu réew moi j'étais un fonctionnaire dans l'exécution des missions de l'État du dëgg même la conception sax ce n'était pas de mais, donc mais mais dama gëm ni moom ni mu ko waxee il faut que moom ay nit yu mun wane bilan am loolu moom mais du man léegi ça